waaw ndajeem tey bi li ko waral mooy que dañoo bokk ci benn réseau bu mag bu ñuy wax Prolunova boo xam ne ñaar fukki réew ak ñaar ñoo ko bokk li ñu tax a jóg rek mooy wasaare pexe béykat yu ndaw yi ndax li ñu seetloon mooy que dañ koo bàyyi woon xel léegi nag ñun dañuy fexe ci daje bi ñuy def tey pour gën koo fësal gën koo wasaare pour que ñëpp xam ko pexe bi ma la ci lima rek mooy bi nga xam ne moom la ñu am ci benn dëkk bu ñuy wax Kër Ndiogou Ndiaye mooy que dañoo jël mango yi am ay garabu mango yoo xam ne doo ko arrosé danga koy boole benn garab rek mu màggal ko donc loolu la ñu nekk di ko wasaar benn ak noonu am na ñoo xam ne café ñebbe la ñuy defar am na ñoo xam ne café buy la am na ñoo xam ne yeneen ak yeneen donc innovation yu bëri la ndax suñu Sénégal na ñaar fukk ak ñaar yoo xam ne tey documenté nañ ko ba ngi nekk donc li des rek mooy wasaare ko pour nit ñi gën koo xam euh, waaw fi toll Sénégal mooy que bu ñu seetloo at yële passé néewoon na doole mais léegi boo seetloo ndax euh, bëri nañ ndax téeméer boo jël léegi ci béykat yi fukk ak juróom ya ñu ngi ci mbir mbay moom ça veut dire que donc mi ngi dox donc ñaareel mooy que ne gis nañu gouvernement bi léegi même su fekkee ne amul ay loi yoo xam ne aju ci loolu rek la am na vraiment xalaat ak engagement yoo xam ñu ngi koy dégg ci ñoom loolu am na solo ci li nga xam ne la ñuy doxal mel ni mbay mu sell moom li ñuy xaar ci moom ñetti mbir la benn bi mooy fexe ba léelu ñuy def ñu gën ko boole ci li ñuy doxal ñoom maanaam politique yi ñaareel mooy ñu jàppale baykat yi ci wàllu financement mais aussi ci wàllu xam-xam ba nga xam ne ñoom li ñuy jàng noonu ak li ñuy wasaare nit ñu gën koo xam ñeneen seen morom baykat yi ci seen liggéey bi Okay. Uh, my name is Susan Carrier. I work for the Food and Organization of the United Nations. I am one of the leaders of gender work that makes sure that rural women, get attention in agriculture. And uh, in FAO, our aim is to support countries so that the technologies, the programs, the policies pay attention to rural women. Jeune Carrière, elle travaille à la FAO et donc au FAO, elle travaille beaucoup sur tout ce qui est promotion de, des femmes dans les politiques agricoles et dans le développement. Et donc euh, elle est là pour montrer aussi le soutien que son organisation apporte euh, au réseau, mais aussi au réseau Nova pour développer euh, l'intégration des femmes dans les politiques agricoles. for social better living? What is the importance of uh, the FAO, uh, the organization like ProNeva promoting local innovation? Um, as you know, one of uh, the aims is also to make sure that farmers, men and women, can have access to information, information on what is the best technologies, how do I plant, what are the best options, and Prolinova the role that it brings here is the whole idea of starting to generate that knowledge from the perspective of farmers. Listening to the voices of women, looking at the knowledge that women and men have, and using that as a starting point for generating this information. It's also a way of making sure that we value the knowledge of farmers and making sure that this information which is more appropriate, that is targeted to the demands of farmers, actually reaches other farmers. So this is the important that uh, Prolinova brings. Uh, donc pour, pour elle, il est important de soutenir la créativité des femmes, mais aussi des hommes. et son organisation reconnaît l'importance de, ce, de, cette approche. Prolinova qui travaille dans cette approche Euh, de par la créativité, de par le soutien à le partage d'informations, est une chose très importante. Et donc, euh, son organisation, son travail consiste à vraiment supporter cette genre d'initiative qui ne fait que donner de la voix aux femmes, mais surtout permettre aux femmes et aux autres producteurs de pouvoir partager des informations dans le secteur où ils travaillent. Okay. I, want to add something voilà. else. Yeah. I think the other important aspect of Prolinova is making sure that this whole concept that farmers have knowledge and farmers can generate knowledge be used to inform policy so that policy is coming from an understanding of what is needed by farmers as well. So this important leakage is also very important. Okay. Dit eh, de Prolinova, le fait de développer des, des stratégies euh, c'est très important. Et donc euh, l'influence des politiques est très importante parce que tout ce que euh, le Pronova fait, une fois que c'est connu ou bien mis en œuvre par les politiques, ça peut amener des résultats importants dans la promotion de, de ce secteur-là. Comment voit-elle l'agriculture biologique? How, how FAO, for FAO, complicated, complicated question. I, think what I would like to, highlight is that one of FAO's most well-known uh, approaches is called the Farmer Field School. And the Farmer Field School approach was designed with the idea of helping farmers to use less pesticide. So FAO is very keen to make sure, one, that farmers have an understanding of what is the best system of agriculture And this kind of work with Prolinova again leads to that kind of answers for farmers. Il dit qu'au niveau de la FAO, il y a l'approche Farmer Field School. C'est une approche de formation sur le champ où on essaie d'aider les producteurs à utiliser le minimum possible les pesticides. Et donc cette manière de faire peut aider à intégrer cette approche de production au niveau des structures familiales, mais aussi au niveau des producteurs. Thank you. Euh, mon nom est Dr Jean-Marie Diop, donc je suis agronome physiologiste. sur ce programme Prolinova, vraiment, c'est, je, suis le principe, je un des principaux euh, formateurs. J'ai surtout travaillé euh, à partir des Pays-Bas euh, en, pro, en, en, promouvant cette, cette approche, surtout dans des pays anglophones. C'est là qu'on s'est rendu compte que la langue l'anglais comme langue internationale, c'était une barrière pour nos pays francophones. Et c'est comme ça que, avec mon ami Baragay, on a pensé à bâtir un programme francophone et qui est le prophète. C'est nous qui l'avons établi parce qu'on s'est rendu compte effectivement dans les réunions internationales, l'anglais était dominant et tous nos confrères francophones qui, qui, à ces, rencontres étaient vraiment, euh, n'étaient pas à l'aise leurs idées passaient très mal, des gens qui avaient de bonnes idées, mais ils avaient vraiment cette, cette, cette contrainte de pouvoir s'exprimer clairement. Et c'est comme ça que le PROFES, donc euh, avec la promotion de l'expérimentation et de l'innovation paysanne au Sahel, a été développé. Et c'est vraiment, pour l'Innova, c'est vraiment le, le, parapluie. Nous ne sommes qu'un sous-produit de, de, de, un, un, un sous-programme de Prolinova nous partageons les mêmes, la, la, la, même vision, nous partageons les mêmes concepts et les mêmes principes. Mais nous, nous avons insisté à l'époque pour que ces principes-là soient adaptés au milieu sahélien. Et, l'état des lieux qui de m'a inspiré. Je me suis rendu compte que euh, beaucoup de, euh, comment dirais-je, c'est ici, ici en, en Afrique, euh, le, vu la variabilité du climat, hein, euh, vu la variabilité du climat, vu l'insécurité vraiment qu'il y a à produire d'une manière, manière, constante, le paysan est frappé de tous les côtés. Il a le dos au mur. Donc, il était préférable qu'on qu fasse valoir la créativité paysanne qui, qui, est sous, qui, qui, qui subit cette, cette, variabilité climatique qui est vraiment sévère au Sahel. C'est ça qui, nous a vraiment euh, guidés. li ñu indi fii fii ndaje mi c'est que léegi suñu réseau bi fukki fukki dëkkal ak ak ak ak benn at mu nekk ñu daje fenn ren nag ñun ñoo ay ñun seen ñun sénégalais yi li tax ñu daje fii c'est que li tubaab di wax concept ak principe ñun ñëpp ñoo ko bokk mais concept bu bu bu bu bu bu bu jar fële fële Cambodge boo ko indee Sénégal mu indi problème c'est que ñun on a dañ am spécificité ah dëkk boo xam ne comme comme comme euh, Cambodge nga xam ne il pleut huit huit huit huit mètres d'eau par an ñun bu ñu amee fii quatre cent sant yàlla xam nga les conditions ne sont pas les la raison pour laquelle bu ñu dajee ah comme que concept yi ñoo ko bokk ku nekk nag wax nag concept non non nan nga ko nan nga ko ñu weccante xalaat voilà loolu daal moo gën a tax ñu daje fii voilà ñoo gën a tax ñu daje fii. ah li tax ñu fi fi Sénégal ou bien dégguma waaw ah Sénégal nag oh, euh, Sénégal dafa gis ne programme bi biñ koy biñ koy biñ koy doxalee fële euh, à partir des Pays-Bas. dafa nekk loo xam ne ah am na am na am na am na njëriñ ci ñun parce que programme bi affaire agriculture la woon et puis programme bi aussi dafa nekk loo xam ne dafa ne ah, agriculture daal néew ne jàngkat rek ñoo ñoo ñoo ci am ñoo ci am cër béykat yi aussi am nañ am nañ xalaat nañ nañ sóob nañ nañ boole ñaar ñi loolu daf moo tax sénégalais yi dugg ci aussi voilà. merci beaucoup ngeen baal solo ndaje bi moom kenn du ko werante kenn ko gam-gam de sunu sunu sunu sukkandiku ci teewaayu experts yi fi ñëw ak teewaayu dëkk yi fi teew parce que ñaar fukki dëkk ak ñaar suñu teewee ci am ndaje du ndajam caaxaan euh, kon loolu déjà ndam la pour Sénégal ay doomu Sénégal bokk ci loo xam ni seen yeneen nattagoog dëkk ñoo ngi ñëw di ko di ko di ci weccoo ak ñoom kon ndaje bi ndaje bu yenn maanaa la bu baax la bu mën a jëmal itam sunu sunu liggéey la surtout que muy wax ci loo xam ni dafa bokk ci ponk yi président Macky Sall gën a fësal ci PSE bi muy agriculture euh, agriculture nag dafa bëri ay pàcc mais li ci am solo mooy solution yi nuy proposé mu nekk ay solution yu jógee ci acteurs yi te ndaje bi dafa mel ni acteurs yi seen bopp ñoom ñooy xalaatal seen bopp génn solution yoo xam ne suñ ko suñ ko jëmalee dafay dafay jëmal dafay gën a taxawal secteur bi kon loolu jaadu woon na ñun ñu yàlla def nuy ànd ak Aminata Tall ci liggéey bi mu nekk institution buy conseiller ak joxe avis ci gouvernement bi ñu teewee lu mel nii pas pour wax mais pour déglu pour dajale pour taataan xam-xam bi fiy génn pour que ëllëg suñu gouvernement laajee du seen xalaat ci loolu nu man ko jox xalaat boo xam ni dafay wékku ci xam-xam bu ay nit liggéey donc loolu mooy suñu teewaay fii nu koy rafetlu di félicité ci turu turu président Aminata Tall euh, waa kuréel gi ñi ko ñi ko seq te di am mbégte bu baax nag ci fekk fi ay experts yoo xam ni bi leen dégloo xam nañ ni ku leen jox baat ci dëkk bi ak ak wàllu yu ñu féete du ñàkk nu génne la loo xam ne dana koy jërëjëf